pour ñu may leen doggatu mburu ñu lekk deewuñu pour que xëy na ñu suukar seen suukar gën a saf non no non Sénégal weesu nañu ils sont morts pour des valeurs supérieures ils sont morts pour des principes yoo xam ne c'est des principes yoo xam ne vraiment euh, c'est des principes nobles mm-hmm. loo ëpp loolu moo tax mm-hmm. ñu nangoo dee mm-hmm. mais de du du pour biir bu fees naan de loolu tax ils sont morts tout simplement parce que danoo topp si nit koo xam ne dafa cristalliser l' espoir de tout un peuple. Mhm, mais tamit loolu ci la woon de. non non man mais non dama xam nga déglu ma la. Mhm. dama ne ci la mais man sañ naa def sama priorité. Mhm, keneen sañ naa def priorité. parce que aussi euh, bon ma eggale donc ils sont morts aussi parce que am na nit koo xam ne gis nañ ko ñu ngi koy bunt xatal ñu ngi koy ñu ngi koy lëjal. te xëy na sax bu leen bàyyoon dinañ dem ba xëy na faat bakkanam ñoom ñu ne nañ taxaw ñu ñun nañ joxe suñu bakkan. waaw mais moom na fexe ba toog rek parce que askan bi parce que bu toogee bu jëlee réew mi rek askan bi dina féex te ñun dana joxe suñu bakkan pour askan bi mhm. loolu moo tax euh, ñu ñu dee comme ni nga ko waxee léegi euh, euh, loolu ci la d'accord lekk ak yooyu et cetera ci la et cetera mais am na ñoo xam ne ñu xiif nekk si dëkk boo xam ne yoon dafa am nekk si do dëkk boo xam ne amul euh, kumba am ndey amul kumba euh, amul ndey lépp jaar si yoon boo demee si police ñu toppatoo la ni ñu la war a toppatoo ñu toppatoo sa dossier ni ñu la war a toppatoo nga dem yoon fekk yaa yoxle dëgg ñu jox la fekk yaa tooñ ñu teg la daan et cetera ñu fexe ba xam ne république bi dañ koy respecté drapeau bi dañ koy respecté ñu am kilifa boo xam ne bu waxee day jëf n'est-ce pas kilifa boo xam ne day respecté askanam di leen menacé am na ñoo xam ne ñu nekk ci loolu ba pare di am tuuti problème dund sa moo leen parce que san ne sert à rien aussi sa biir fees nga naan ba mandi ba pare toujours sa xool di tàng parce que yaa ngi gis yu mel noonu mm-hmm. yoo xam ne métti na d'accord suur nga mm-hmm. suur nga mm-hmm. mais quand même sa xool a ngi tàng toujours voilà mais ba xam commissaire xam nga yow tey homme de tenue nga tey ci ci ci yooyu noonu am na ci ñaar ñoo xamante ni si ñi tey Mm-hmm. muy euh, cher Jean Fulbert Samb ak DJ ji mm-hmm. ñoom aussi tamit boobu ba léegi d'ailleurs sax am na benn euh, benn benn mouvement boo xam ni euh, seen yenn ci seen ay classes taxawal nañu ko pour réclamer justice pour ñoom mais est-ce que jàppoon aussi tamit xëy na taxawaay bi ci seen kilifa yi ñoom waroon a am aussi tamit xaw na des ci côté boobu. waaw bon xam nga. pour réclamer justice. non pour réclamer justice moom effectivement xëy na ñoom xëy na seen kilifa yi ñoo toog di réclamer parce que ñoom xëy na. am na neneen euh, neneen nu ñu gisee mbir mi ñoom ñoo xam nu mu demee est-ce que xam nañ sax nu mu demee aussi parce que euh, nit ki mun nga ko yilif mbir am aussi fekk nag yow defalee lay dépassé sax quoi. waaw ñàkk ko xam. waaw waaw war a taxaw voilà euh, non ñàkk justice bi ñooñu moom. Uh-huh. war nañu xam exactement lan la lan moo xew. au moins sax ñu mën a enquête sax. parce que enquête mun na aboutir comme mun na dafa soxal. non mun na sénégalais yu. non non ñëpp ko xam na bu nga c'est-à-dire que euh, a commencé par ñi ñu doon liggéeyal sax. Mhm. ñi ñu doon liggéeyal parce que am na loo enquête moom mun na aboutir comme mun na bañ a aboutir mais l'essentiel mais na ñuy jéem sax ñu seet. lii na la xewee fu mu xewee euh, ñëpp ba ñëpp technicien ba ni xam ne ñi def nañu seen kéemtulaay kattan pour dégg bi feeñ. mais bu boobaa on le reprochera rien mais fekk defuñu enquête c' comme euh, ñiy dee rek xam nga euh, Sidiki Kaba toog na fi. Mhm. au nom du gouvernement ay naataangoom wër ko mu ne état Sénégal bi dina créer une commission d' pour ñu seet effectivement yëf yi nu mu demee mais ba sax amul benn donc façon yooyu moo war a deñ waaw euh, gouvernement warul di fet askanam. gouvernement ministre warul di fen askanam président warul di fen askanam man nag damay utiliser baat euh, fen ah, parce que xam nga mhm. Sénégal aussi euh, nit ñi damay dégg nit pour nga wax fen sax nga ne jégal leen ma si kàddu gi et cetera qu'est-ce que c'est que histoire <laughs> non mais xam nga Sénégal aussi muus kay muus la tudd rek waaw ah, waaw quand même waaw mais pour nga wax fen sax il faut nga nga jégalu quoi et cetera Mm. mais quand même non loolu aussi côté la boo xam ne il faut que ñu changer mentalité moi je suis pas dans le tubaab di wax dans le politiquement correct dans le socialement acceptable wala dans le moralement admis déedéet nekkum ci li nga xam ne moom laa war a wax moom laa war a wax kaddu bi ma war a yëkkati moom laa teg donc affaire Fulbert Sambou ak euh, Didier Badji effectivement parce que ba léegi seen euh, waajur yi euh, ay seen i soxna seen i doom am na koo xam ne sax je crois soxna fan yële génn àddina mm-hmm. mais dafa war a leer dafa wala leer ñu xam ne aussi ñi ñaa ngi mais lu bon mooy yii di xew n'est-ce pas am na benn kaa boo xam ne aussi dama koy wax buñ ko waxee ñu yaakaar ne dama singale sama mbokk alkaati bi non du loolu cest à mooy ki nga alkaati bi nga xam ne dafa génn ci otoom mm-hmm. euh, excuse dafa génn ci otoom jàkkaarloog benn xale bu yore drapeau Sénégal tiire ko mu dee loolu ñëpp si teg seen bët loolu kenn mënu ko weddi mais est-ce que waruñu xam kooku kan la mm-hmm. pour ñu jël sanction contre moom. Mm-hmm, mm-hmm. mais c'est pas normal de loo xam ne waruta mënta nekk bu doon beneen dëkk la nañu parce que yomb naa xam xam nañu ban oto la génnee xam nañu oto bi ban service la bokk xam nañu bërëb bi fan la xam nañu waxtu bi kañ la xam nañu ñan ñoo nekkoon ci biir kan moo nekk chef de bord kan moo nekk chauffeur et cetera pour ñu identifier yomb na. Mm-hmm. parce que loolu day tax ñoom police ak gendarmerie yu mel noonu bu amee ñoom ñu jël seen responsabilité day askan bi gën leen a wóolu. effectivement nee leen ndaxte ñi am na loo xam ne bu xewee safaan bi bu xew seen biir. Hmm. ñoom ñooy jël seen responsabilité ñu dénoncé ko ba pare ñu situé responsabilité mais am na yoo xam ne buy xew ñi ñi di noppi te kenn xamul lu mu demee. loolu mooy indi léegi frustration ak mbañeel bi nga xam ne mooy am diggante askan bi ak euh, force de sécurité yooyu aussi nañ seen nu ñu koy jooyante daal. te te instant bi ñu ngi doon woo xool ak waxtaan naka la ñuy def ba mën leen a euh, jubóole te loolu. Hmm. Euh, mu nekk lu am solo ci ci côté boobu noonu mais gis nañu benn vidéo bu mu joon viral bon. xam naa ni les sénégalais euh, <clears throat> li ñuy li ñuy demandé rek mooy euh, vraiment lu luy waral li ak luy tax euh, xëy na ñoom ñu am sañ-sañu def li benn waay bu ñuy woowee ci turu Dof ndey bi nga xam ni ñu bare bari ràññee nañu ko <clears throat> parce que benn waay la jàpp ni moo toj pare mu mu. jël benn arme blanche boo xam ne kenn autorisé wu ko ko mu fitnaal ko ko ci ba jël vidéo yi ñu filmer ko ñu ñu tasaaree ko comme si que moom bi mu koy def euh, dafa mel ni da ci am nu mu ko mën a tuddee yenn garantie yoo xam ne xëy dara du ko ci fekk lan nga yaakaar ni mooy expliquer loolu ak euh, ñaawteef yu ni mel yi nga xamante ni si ni mi ngi gën wéy di gën a bari euh, ndax comme ni ñu ko waxee sànq rek impunité bi daf ci daf ci gën a joué bu baax a non parce que en presse warul am impunité c'est-à-dire que aussi booy seet ak réseaux sociaux yi ñi nga xam ne ñoo am succès ñi nga xam ne ñoom la ñuy seetaan ñoom la ñuy tuddee moom laa la c'est la vermine de la société ñoo gën a yées si société bi mais moom la ñu bëri si di bëgg di seetaan di bëgg di déglu di bëgg di commentaire surtout ñi nga xam ne tey jii ñu wax xeex pour régime bi toog mais ñooñu am na leneen lu ñu war a tal war a di commenter ay ay waxu nit dox boobu. koo xam nga depuis ba régime bëri la effectivement. dof ndey mais c' est dof ndey et <laughs> donc li si xew mooy aussi. Euh, dama koy wax autorités yi dañuy yolomal autorité yi fi nekk ñu ngi yolomal dafa am yoo xam ne waratu fa xew et cetera mais c' est pas normal kooku xam nga nit kooku ñaari mbir rek la am ñaari place. Mhm. benn bi soit kaso soit nu yóbbu ko si asile euh, psychiatrique. foo xam ne fa la ñuy faja dof yi ñaari place yooyu rek la mais amatul droit nekk si bi di circuler loolu boo amee c'est-à-dire que autorité ñooy responsable dafa am ñoo xam ne dama ne jamono ji man yaakaar naa ne sax dina leen fekk ba rëbës. ñenn ci. non parce que parce que c'est que di tudd. boo seetaanee vidéo bi. ak ak ak euh, non mais c'est dafa dafa dafa metti euh, ñu dem bay ne léegi. dans un état ñu ne léegi euh, jamono yooyu ñu ne woy am na ñu ko defoon. mais ñooñu ñu ne ñemewuñu porter plainte parce que ñitu xaritu président de la république la mais loolu yi encore une fois ma ne autorité yu bees yi lañ jël seen responsabilité ñu ngi mel ne ñuy nooyool parce que dama ne man am na ñoo xam ne bu ma leen gisulee biir rëbës si du ma kontaan dama ne yëf yi motul ku mel ni Suzanne Camara toog na fii ne nañu rey Sonko nañ dem këram ñu rey ko bi mu ko waxee ba léegi amul prescription si wàllu justice c'est-à-dire que mun na ko topp ba léegi mais lu ko tee mu oo ko laaj dugal ko def ko mandat dépôt lu tax lan je veux savoir dama bëgg xam explication rek am na keneen koo xam ne dafa bakku ne balaa kii Suzanne Camara di ko moom moo ko njëkk wax di ko bàkku ne wax naa ko bind naa ko kooku lu procureur di xaar ci moom pour oo ko ñëw ne ko yow yaa wax la et mu jàpp dugal ci mandat de dépôt et cetera mais bu gazee les volets du terrain effectivement. pour trois cent cinquante millions de xaw millions de de faux billets. alors que prison bi am na xale boo xam ne xëy na mu ngi foofu depuis un an ou bien depuis deux ans. Mm-hmm. ñu ngi ko jàppee si si si benn benn dix mille francs benn billet wala ñaari billet dix mille francs que ay millions mu ngi ne la di tambambaalu nañ ko jàppaat encore delloo ko fekk de feebar la tànn na ñu dugal ko biir wala ñëw ba ko pavillon effectivement vraiment il faut que justice se quatre-vingt-quatorze wax mais premier Mamour Diallo waaw mu dem ba OFNAC OFNAC ne yaa association de malfaiteurs Mamour Diallo moo fa ne te ñëpp xam nañu dee yi am yëpp ci dossier boobu la jógee. donc booy remonter chaîne bi dañuy ne sax Mamour Diallo il est en partie responsable de ce qui s'est passé il est responsable des morts qui euh, yi xam ne xew na fi et cetera mais dossier boobu dañ koy traîner. lan moo ko ci dossier yow waruñu woon xaar instant mais ni ñu koy xaaree pas parce que waruñu xaar ñuy wax ay conseil supérieur magistrature a changer dana bëgg a wax ni léegi boobu ba léegi euh, euh, justice doxul ñu ngi àtte ñi ñi ci tribunaux yi. Mm, mm. waaw léegi ñu seet sewaani fi mu toll fii justice bi tal na mais ñu mag a mag ñi talaguñu la dana war a tal fi mu toll fii. 94 milliards ni ko procureur jël def ci li mu ci war a def n'est-ce pas of nag ay dossiers yu bëre ngi foofu et cetera donc vraiment je crois que daal euh, yëf yi daal na. reddition des les personnes yi fi nekkoon ci président Macky ce sont les mêmes personnes itam mais cest à que actuellement le système encore sur place. le système sur place parce que système bi pose problème système bi daan moo ko incarné si c'est au niveau extérieur mais ils sont là la représentation diplomatique la les ambassadeurs sont là mhm. les consuls sont là personne n'a bougé n'est-ce pas bon bu dee wàllu nga xam ne ñoom ñoo yore kaaraange bi et je les appelle parce que ñu ngi def liggéey bu rafet aussi mhm, mhm. mooy administrateur euh, gouverneur yi préfet et cetera moi je les appelle les chevaliers de la république parce que xam na lu ñuy liggéey waaye aussi ñoom ñu ngi personne n'a bougé gis nañ koo xam ne vraiment bi mu nekk Dakar ñëpp gis nañ li nga xam ne moom la teg si métti si ñi ñi actuellement mu ngi gouverneur nañu bàyyi yenn yenn yenn xalaat man ma ci logique boobu ma si logique ensuite lan la ñu doon ngañ dëgg dëgg dëgg justice mais justice bi juge yi fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi procureur yi fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi et cetera donc xool ma ñetti piliers ba léegi rien n'a bougé donc le système est encore là sénégalais yi nag dañoo seen bakkan c'était pour que anti système samp fi mais waruñu toog ba trois